moom nag mooy waajuru homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla bi nga xam ne moo jiite Ecotra SA Ecotra SA di ab société boo xam ne bu ñu ràññee la ci Sénégal ki nga xam ne moo ko taxawal di Abdoulaye Sylla di homme d'affaires tamit boo xam ne ràññeeku na lool ci Sénégal waajuram wi nga xam ne nag moom mooy Aliou Sylla moom dafa yëkkati ay kàddu dikk ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am diggante doomam di Abdoulaye Sylla ak njiitu réew mi di président Macky Sall ndax nag diggante Abdoulaye Sylla ak président Macky Sall diggante la boo xam ne diggante bu yàgg la waaye dem nañ ba ak réeroo am ci seen diggante waajuru Abdoulaye Sylla génn def ab sorti wax lan moo am ci seen diggante ak nan la état bu Sénégal amee lee xaalis ki nga xam ne mooy om d'affaires bii di Abdoulaye Sylla ndax nag ci ay ginnaaw ci weer ci ginnaaw liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci société bi di Ecotra SA def nañu fi ay sorti ay yooni yoon ñi nga xam ne ñooy avocat yi Abdoulaye Sylla tamit def nañu fi sorti ay yooni yoon ñoom ñu jàpp ne dafa am benn marché boo xam ne dañ leen kaa xañ te anam biñ leen ka xañee jaarul si yoon kon mbokki Baol info TV ñu déglu waajuru homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla dara tàgguwuma su ma la génne sama appareil bi cinq appel ngay gis dans le mois man toujours dañuy wootante Ablaye du du dem fenn du def lenn tal tàgguwuma mais yàlla dimbal na ma am naa xel fi ma koy orienté xam naa ko Ablaye ak Macky Sall dara jësalewu leen Ablaye moo ñëw bëgg Macky sal ñu reyante ji ba mu ñëw Macky Sall keroog ba mu ba mu gañee réew mi ba mu ko wooyee ni ko loo bëgg ma def la def ma ne bu ma def dara saraka la yàlla àtt na man ah, Marème mii maak moom jàngandoo ba ba ni mu toll nii sama taaw moom mii laa ko tuddee man kër gi ci laa bokk. am naa sama liggéey it bul ma faral man ñem man battant laa naa ñefe su ma am su ma gagné sax marché ma liggéey su ma waree am lu may lu ma leen di jàppale walla loolu ma jàppale leen. giñ naa ci yàlla loolu la ko mu woo ma ni ma papa mm, président woo na ma waaye jëluma benn poste bu ma sax ñun ñëpp duñ jël poste nañ ko jàppale waaw moo ko wax ko yaayam. ñuy dem di dem di dem di dem ba eh, seytaane rek ñoo leen boole Ablaye Sylla bu yoree bu yoree entreprise gagné marché am ñu lijjanti ba jël marché ba jox ko keneen mu dem justice ñu nangu marché ba delloo ko Ablaye la ñu nanguwaat ko ci Ablaye Sylla delloo ko waa ji Ablaye Sylla am na am na marché yu bari yoo xam ni état bi dañ ko ci ameel xaalis day ñëw liggéey xaalisam ñu war ko fay duñ ko fay dara ma bëgg a daane société ah alors Abdoulaye la geddul de dawul dem fee itam dafa ne xam ni comme que fii munu ni ni ñu koy def ni mënu fe de mu dem Amérique toog ak jabaram ak mu ngi liggéey Abdoulaye Sylla mu ngi li mu yor entreprise multinationale la ñoom bu ñu ko keppee fii moom am na fu muy dundee. di fàttali Ecotra mooy entreprise boo nga xam te ne màggal Touba fépp fu am ndox si Touba ngay gis ñuy sonn 24 heures sur 24 ñoom également ñooy nekk. Euh, bu di ko sëñ Tuubaa foofu mooy seen base. bu dañuy ñëw 15 jours avant liggéey dëkk bi yëpp ba mu set delluwaat. duñ ko jox essence. duñ ko duñ ko jox lekk lépp lay dajale ba mu mët ak per diem bi muy fay chauffeur yeeg ñi doon liggéey yëpp indi mbandu essence am ci lay duy ci lay liggéey ci lay dellu. moom taalibe la day jaayanteeg Serigne Touba sëñ gis nga ñi sëñ sëñ di Motaar mi ñi ñee jar a jaayanteel. moom nee ma man papa booy bara nga toog. giñ naa ci àlla duma ma torox ndax xam naa li ma liggéey te xam naa ñi ma ko liggéeyal. loolu doy na jarul Macky Sall Macky Sall nag bu fekkente ni moom ndax nañ ko ba mu dugg ci ay carcan yooyu jàpp booy bi di ko téye di ko xeex naan booy bi dafa ambitieux lan la ambitieux ah téye ay mais on lui doit des am na boo xam ne bii sax am na lu ma mënul wax jale bi mais moom waroon waroon waroon na maa ngi ñaan na ma woo rek. man ragaluma ko de barke Serigne Touba ragaluma Macky Sall du ma ko tooñ nag naa ko jox cëram président la waaye naa ko dëgg goo xam ne gi moom lii waru ko woon a def yaramam waroon naa daw te man ak moom ànd nañu ànd nañu ñëpp xam naa li ci biir yëpp li sama doom doon def yëpp xam naa ko ndax dafa may tàggu papa nee nañ ma abal leen nangam papa nee ma def nangam mënoon naa ko ne bañal abal na leen xaalis kon si ay campagne jàppal na leen assuré na ay. su ma la nee 2012 on a perdu presque 8 milliards au Sénégal Ablaye yemul woon fii de daan dem Tamba Casamance Diourbel fu ne eh, Linguère Ndar man am naa ñu mu am tey dañoo yeewu léeg dama ko daan indi maa koy jox ndax man sedd laay wut ëllëg day ñëw ci Ablaye ne ko nangam ak nangam wax ma ne ko non non non jox ma xaalis ma yóbbu parce que boobu may sedd laa am na ay ministres yu bari ñu may dégg am na ay directeurs yu bari ñu may dégg. ñëpp jàkkaarloo na ñoom xam naa ci lu bare bare bare. en tant que directeur Ecotra moo doon ku ne moom campagne mu Macky Sall teyu ko woon daan joxe rek. waaw ñu ne xaalis xaalis boobu ñoom ñoom ñoo ko joxal ñoom ñoo ko jàppalee nag dafa war a investir rek. wala que jàppale wuñ ko ko. fu ñu koy jàppale. mu nga wala. mosuñu gagné marché état. Hmm. jamais de la vie. du yaa ngi may dégg rajo kon nañ ma tontu. moom def na woon am Macky Sall Baye Ablaye était tellement équipé ba nga xam ne marché bu mu compétir benn seen ñaar da matériel bi mu am fii amul il a un matériel de quatre-vingts milliards boo demoon fa ba gis engins yi amul presque dans la sous-région moom dafa demoon uti ay affaire am ba nga xam ne ku togg di nga ko sóoraale. mais ces activités quand même continuent biir Sénégal dans la sous-région. munul dem parce que actuellement actuellement ça cinq six mois yoo xam ne mënuñu fay agents yi parce qu'on lui des milliards. mu ngi seet léeg-léeg mu arrêté liggéey yi léeg-léeg mu perturbé nañu liggéeyam ci dudul dara. daanu moom fi jóge ah, non moom nee ma du mu daanu ndax ñi fee ñi ne fii ñooy daanu ñi mu engagé fi 800 personnes da jël ab Ablaye paye paye 450 million par mois de salaire. directeur yi mu amoon ingénieur bu mu fay bu amul 4 millions am nga 5 millions wala 7 millions loolu fu mu sa am moom du doon jàppale nit ñi rek ils étaient 800 personnes bu ñu ko yàqee ñoo xam. am Ablaye tedd na bu yàgg yàlla dimbale na ko tey dañuy sonn rek ñoom ñi ko doon di xuloog di liggéey ak di ci dugg yëpp dañ sonn Macky Sall bu bu fayul goos bi <laughs> baax na parce que Serigne Touba bu fayul goos bi yàlla baax na. mais la ëllëg mi ngi fi. ah, ah moom monsieur Guèye laa ay chèques lañ ko yoreel foofu xaalis lañ ko yoreel dañ ko fay. am nañu koo xam ne da koo ne ko na nga ñëw ñu avance ay ay mu ne du ma ko dungu su ma ñëwee ñu avance ma dañ may abat ci ko moom moom faible Macky Sall la yor ni muy def nii gars yi dañu leen dafa mer non il a sori Macky. dans tout ça ana Mariam Sall xaritam. ah noonu rek daan dimbale moom itam comme que lii am na ah taxaw na man dégg naa sax ñu naan nee dañ leen a liggéey xam nga yooyu waaye nañ ko fay rek buñ ko fayee mu ñëw toog. ku ko ñaan mu jox la waaye du ma la fay doo doo dund te ba pare da may jox loolu ko mën mënu ko. jërëjëf bi ma yoon. Ah. ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk auditeurs yi. Macky Sall daal bu man mooy président waxuma ko na ma na ma invité wala na ma sarax bu ñemee na ma woo rek ñu toog jàkkaarloo man naa ko li ci biir yëpp naa ñi koy yàq xam na ko am na ñoom ñu fa nekk def lu leen neex mais booy bi toog nañu ni mu woo leen ñoom mu ne fay leen jaamul xaalisam. ñu bañ xanaa moom président de la république il donne des ordres à des ministres ils ont refusé de faire ça Macky fi mu ne ñu ngi koy gën a accusé parce que moom moo ko nangu man du ma ñuy lif nit ni ko fayal fayal eh, kii xaalisam mu bañ ma la cay bàyyi kooku kooku mu yan yan façon nit lay def moom itam ah ah dañ ñoo liggéey dañ ñoo dëddalee mais fay ko booy bi nag nee na bu ñu ko fayee mu ñëw toog liggéey liggéeyam bu ñu ko fayal mu xaar yàlla dana changé fii daañu ko fay parce que ay kayit la.